ngeen jot suñu vidéo nag foo leen la mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi fii ci kër alxaaji Ahmadou Gaye Tamba tabaarakallaahu yi ñëpp xam ngeen ne ci mois de mars bi ci lañu waroon a def gàmm gi nga xam ne baaxoo nañ ko def at mu jot fële ca Daaru Salaam Gaye ñu toxal ko nag lan moo tax ñu toxal ko incha allahu taala ki nga xam ne mooy Cheikh gay di porte parole famille bi dina ci ñëw léegi incha allah kon Cheikh euh, lan moo tax ñu fomm gàmm gi. salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ñëwaat nañ fii ñu doon toog di leen di waxtaan ak yéen tey nag ndigal daf ñu dab ci suñuy kilifa kilifa gi muy sëriñ Babacar Sy Mansour muy xalifa général des Tidianes ak rakkam Pape Malick rakkam sëriñ Maodo si ñoo ñu yëgal ni xew-xew yépp lu am ci kër gi nañ ko teg ci suuf ba jëmmi jamono loolu moo waral woote bii mu ñëw fii ci waxukaay yi pour mën mën leen ko wax ndax xam nañ ñi mënuñoo dem fu ne leen ko yëgal te jàpp nañ ni bu ñu ko waxee fii ci waxukaay yi ñëpp dinañ ko yëg te ñun ci ndigal lañuy ñuy wéyee suñu kilifa bu ñu nee def leen ñu def bu ñu leen bàyyi leen ñu bàyyi moo tax ne nañ gàmm gi nañ ko yëgal ñëpp ni suñu gàmmu waajur muy El Hadj Ahmad Gaye Tamba bañ daan def ca daaru daaru salaam Gaye ca daara ja ca biir dongo ya ren moom du am man it maa ngi koy waxee ci sumay turu kilifa muy Cheikh Gaye di taawam Mouhamed Gaye Pape Gaye ak Awa Gaye ak Serigne Diop médiateur mbokk yi loolu de moo ñu fi indi tey pour ñu yégal leen information boobu mu ngoog kon gàmmu daaru salaam Gaye fomm nañ ko ba jëmmi jamono waaye ku ne xam na ne foofu daara la ay dongaa fi nekk te ku ne xam ne ne jamono bi am na ay matuwaay yoo xam ne euh, kilifa yi jël nañ ko pour daara yi yéen euh, naka ngeen yan matuwaay ngeen jël pour daara jooju ak tamit ban euh, xalaat ngeen am ci feebar bi nga xam ne moo lëmbi jamono. matuwaay yi nga xam ni moom lañ jël ci daara ji mooy bañ daan jël ndax foofu ab àll boo xam ni dañ ko tëj dong yi duñ génn duñ yi ku feebar ñoo lay faj dangay ngay sang di solu di lekk di naan ngir yàlla nag lañ koy def luñ ci fekk nag baax na waaye matukaay yi fekk nañ ñu jël ko waaye comme que suñu kilifa réew it da cee dolli leneen muy wér di gii nga xam ne ñëw na matuwaay yi dañ ko gën a jëlaat waaye matuwaay yi moom fekkoon na ñun ñu jëloon ko donc bëri na toll na ci benn quatre cent et xale ñoo nga fa ñoo la wutal fu ñuy tëdd ñoo leen wutal lu ñuy lekk ñoo leen wutal lu ñuy naan bu ñu feebaree ñoo leen faj benn loxo nag fekkuñ ci loolu fi sabilillahi nit mooy jóge fenn rek ñëw xam ni fii mënees na fee liggéeyal yàlla mu ñëw liggéeyal fi yàlla waaye du état moom ci fekk dara fekkuñu ci luñ ci waaye ñoo ngi ci ñoo ngi ñaan nag comme feebar bi xew na lépp ndimbal loo xam ni mën na caa am ci euh, fegu luñ ci mën a jàpp ñu dem ba ca foofa suñu rak ki ñuy wax alhaaji Malick si gay Gaye sëñ alhaaji Malick euh, Gaye Maodo moom moo fa nekk moom moo yor daara ji lépp loo lu ñu fa yóbbu rek mën nañu ko yóbbu foofu jox ko ci wàccaayu feebar bi. xale yi xale yi moom naka jekk du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu génn du dem fenn waaye feebar bi dama bëgg feebar bi dama bëgg ñu taxaw ci def ci benn jàngat te ñu bañ a naxante ci suñu biir ndax suñu boroom nañu wóor ni lépp lu mu wax dina ko def te lépp li mu wax mi ngi koy def. wan nañu boppam ay yoon yoon yoon yoon yoon ñu dumayu tey nag teg na lu teg nañu lu ñu ëpp doole sëriñ bi ñun doomi soxna yi ñun sëriñ sëriñ daara yi alxuraan yi dañoo war a xam li ñu fi indi ak li fi bàyyi jàpp naa ne xamatuñ ko ndax liñ fi indi ak li ñu fi bàyyi mooy ne ci tool yi nekk ci daara yi di jàngale waaye bàyyi nañ ko fi ñëw dugg ci taax yi bokk na ci li nga xam ni tojaange yii ci am ci réew mi loolu ci la bokk ndax ku nekk am nga tool woo war a bay ñun alxuraan lañ war a bay nekkal alxuraan ñun doomi soxna yi ñun sëriñ ñun ñun sëriñ daar yi dañ ci war a góor góorlu ndax yàlla wan nañu wan nañu boppam te it nañ xam ne suñu borom lépp lu mu wax dina ko def lii mas la moo xam ni lu ko gën a garaaw amul waaye sañes naa tuub nañ tuubaat delluwaat suñu borom mbokk yi nañ defaraat xol yi feebar bi garaaw na de waaye feebar xol yi ñoo gën a metti ñoo gën a garaaw kenn yéeneentuwul sa moroom jàmm wëllëre rend nañ ko xat xatt amatut gore rend nañ ko xatt amatut te yooyu yëpp ay feebar la ñun de bu njëkk lu ci bari daf ñu daan daf ñu daan tiim daaw ñu daawul egsi mais léegi lépp lu ñëw daal dugg nañ xoolaat suñu bopp nañ xoolaat suñu bopp te ñoo ngi sant suñuy kilifa ndax matukaay yépp yoo xam ne war nañu ko jël saa bu jotee ñu jël ko sagal ñu si ñoo leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla yàggal leen suñu kanam yàlla guddal seen fan wëral leen ñu gëng ñu gëng ñu ba ci kanam ndax sagalaat nañ ñu ci xew-xew bi ndax ku koo ci gis taxaw na fa mu war a taxawee wax bu wax la mu war a wax ba mu jotee waaye ñun taalibe yi ñun donga daara yi ñun sëriñ alxuraan yi nañ gën a góor fonkat fonkaat njàngale bi fonkat tool yi xam ne loolu mooy suñu cër lii ñu lii ñu ne di suñu cër nañ ko bàyyi seeni borom asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te jiital ci nuyoo bi kilifa yu mag yi te mooy sëñ Babacar Sy xalif général de Tidiane ak sëñ Mountakha Mbacké xalif général de Mouride ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen di leen siyaar di sàkk ci ñoom ñaan tam ñu ñaanal nu ba feebar bi dugg ci réew mi suñ boom teggil na ko ci nu mu gën a gaawe ginnaaw lool nag ni ko suñ seex waxee daara jee euh, gàmm gi ñu dañ def ca Daaru Salaam Gay ren ji ñu euh, feebar bi tax ñu fomm ko euh, daara jooje ay dong yu bari ñoo fa nekk te kenn fekku ci suñ Maodo Gay ma fa nekk ak suñ Seex Gay mii ñoo fa nekk yor leen di leen jàngal alxuraan di leen dundal di leen faj di leen defal lépp ñooñu nag képp koo xam ne dëkk nga ci réew mi am yàlla mën a la war ngaa dem fekk leen dimbali leen ngir yàlla bañ mën a taxawal loolu ñuy taxawal ndax bu nu amee jàmm kat ñu daare ak dongay daare jàng alxuraan ñoonu ñoonu may jàmm kon nag euh, lii sëñ Cheikh wax euh, daara ja na ci ñëpp jàpp bu ci buñ ci jàppee rek. maanaam yàlla mën naa doo donc ya fay jàng alxuraan ak sëñ daara ya fa nekk di jàng xalaat yàlla mën na ruse loolu ba teggi feebar bi kon nag ñu ngi ñaan ñëpp mbokk julli yeeg mbokk taal bi ñaan ñëpp uh, maa ngi maa ngi waat soññaan ak sama mbokki sëñ daara yi nan góorgóorlu ci njàngal alxuraan yar suñ bopp yar suñuy dong maanaam teg leen ci yoon te nan teg suñu bopp ci yoon siraatul mustaqiim teg suñuy dong ci yoon siraatul mustaqiim jub ndax suñuy kilifa ci loolu lañ ñu yar jub ak jubal moo tax mu mosuñu am dara lu leen metti buñ demee ba am lu ñu metti rek xamal ne ñun noo wàcc suñ noo teggi suñ tànk fan ko foo ko mag ña tegoon waaye buñ delluwaat fa mag ña tegoon seen tànk rek lépp jàmm lay am kon nag ñoo ngi ñaan yàlla feebar bi nga xam suñu boom digalu ko ci réew mi yàlla na ko fi yàlla génne ci nu mu gën a gaawe te kenn ban cee loru wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi comme ñi ko jiit ñi ma jiitu waxe rek mooy xew-xew bi nu daan taxawe muy daaru salaam gay sunu gàmm googu nga xam ni fami alaaji amadou gay tàmbaan ñoo ko daan taxawe at mu nekk bokk kook mbokki jullit yi diaspora beek ñi nekk ci dëkk bi eh, réew meek fu waay daan fa jóge noo ngi leen di yëgal ni jaam ak pexe yàlla dogal dañuy ñaan yàlla kañ nu fekkewaat ko ba woote waat ñépp wuy si waat nu li tax nu euh, arrêté ko mooy topp ndigalul suñuy kilifa man nag maa ngi koy jëmale ci borom xam-xam ya daan ñëw di ay imaam ak i sëriñ ñoo ngi leen di xam ni ah bu nu sañan di ko def waaye nag yàlla moo wàcce lii ca lay laysa laha min dunillahi kaashifatun yàlla rek moo ko mën a saafara fu waay mën a nekk na jël kurusam walla ci làmmañam tuub dellu ci yàlla ñaan lii dal ci réew meeg àdduna bi yal na ko yàlla sempi nig dëkk ku mu dal yal na yàlla saafara la ku mu dalagul yàlla bu ko yàlla yàlla bu ko yàlla eh, eh, teg loolu yal na ko ci yàlla musal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nit bu mënul ci boppam dara xamal ci boppam dara day nangoo am kilifa ñaar moo ñu yilif mooy kilifa àdduna yi ak kilifay lislaam bi suñu kilifa yi àdduna dañ leen dénk suñu àdduna suñu kilifa yi lislaam yi dañ leen dénk suñu ruu yi kilifa yi àdduna yi lépp lu ñu tere dañ ko war a bàyyi. lu ñu diggal ñu nekk ci suñu kilifa yi nga xam ne suñu ruy leen dénk ak suñu jëmi bopp yi dañ leen war a bàyyi suñu bopp bàyyi leen ñoom ñoom it seeni bopp lu ñu digal ñu nekk ci lu ñu tere ñu bàyyi waaye yaa ma yilif nii laa bëgg yilife ma nii laa ko bëggee du noonu waaw moo tax ma bëgg ñun taalibe yëpp ñu xoolaat suñu bopp xoolaat mbubb solaat beneen mbubb muy mbugg taalibe nangoo topp suñu ginnaaw kilifa ñaanal leen ndax li xew-xew bii am wan nañ ci ni ñoom fa ñu war a féete féete leen fa est-ce que ñun ñii fañ leen war a féete féete nañ leen fa war nañoo góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a salaamaaleykum. kon mbokk yi mu ngi noonu loolu jóge ci njabootu alxaaji Ahmadou Gaye tàmba tabaarakallahu gàmmu nga ñu doon def foofu ca Daaru Salaam Gaye ca Mbambilor ngeen yëg na kon fomm nañ ko ba jëmmi jamono waaye nag teg ko ci kilifteef fa tabaarakallahu daara ja tamit dégg ngeen wax yi ñu ca wax. ca taxawaay ba nga xam ne ñu ngi koy taxaw waaye ku leen ca fekk tamit tabaarakallaahu yàlla fay la kon mbokk yi lii moom lañ leen jëloon fii ci kër El Hadj Amadou Gueye Tamba jër ngeen jëf. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si ngeen mën a jot moo leen mën a xam nga xam ne